li gën a fës ci bopp xibaar yi dañ koy door wàllum wér-gu-yaram ak jigéenu Petrosen yi doon amal remise de don pour structure de santé bu Anne-sur-Mer. wàllum politique wax ci coowal ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky sàll Mously Diakhaté di député à l'Assemblée nationale àdduna ci. bu ñu fa jugee wax ci wàllum nekkin ak benn vidéo buy circulé ci groupe whatsapp bi ñeel ay garab yu ñuy dagg ak buddi foofu ci Hann Montagne 5 mu nekk lu askan wi di ñaawlu. ay dons matériel médicaux yu mucc ayib la jigéen yu Petrosen ci ndimbalu seen direction général jox waa centre de santé bu Anne sur Mer ñu nga ko doon amal lundi bi ñu weesu ci occasion journée mondial de la femme lu ci mel ni pause bébé lecture directe cap 20 kilogrammes ay matelas d'hospitalisation plus allège ay analyseur d'hémoglobine ak yeneen i matériel yu am solo.

affaire u juddute bi dañuy am souvent ay problèmes à la naissance ils ont des problèmes si lañ ñu wax suñ leen mënee wutal benn table chauffante suñ leen mënee wutal ay euh, ay euh, matériel boo xam ne dina mun a jàppale jigéen bu ëmb ak jigéen buy mucc ak xale yi soog juddu comme c'était une première en attendant yeneen année yi di ñaan yàlla nag parce que matériel bi ñu leen indil quand même matériel de dernier cri pour que ñoom tam ñu téye ko jàpp ko mun si faj ay njaboot duñu bëgg ñi dëkk ñuy xalaat dem clinique lañ leen di clinique sur place pour tax ñu def li ñu def. vraiment suñu xol dafa euh, accompagnement bi ñu ça va nous soulager daal soulager ñu soulager population de sur matériel bi fi nañ comme euh, d'habitude ñun yàlla def na sax comme li ñuy jot matériel bëriwul surtout subvention yi ñu am du bëri motax matériel bu ñu am mom di nga koy entretenir dañu am ay techniciens yo xamné ñoy assurer maintenance bi du ñu bàyyi n'importe qui di laal suñu matériel ay euh, maintenance yi professionnel ñoo xam ne ñoo war laal euh, matériel bi ñoom ñu ngi koy jox ñooy assurer euh, maintenance bi ak suivi bi. Babacar Meng di maire bu Anne Belair air di rafetlu bu baax lu nu mel tey profité ci occasion bi di sargal jigen yëpp. bo gisee geste bi ñu def dafa mengo toujours ak li nga xamné moi euh, préoccupation wu population yi laay wax pas préoccupation ou personnel au centre bi parce que nous xam nañ structure de santé la dafa nekk ci centre de service public et ñu soxla ay jumtuwaay yoo xamante ne mooy mu ñu mën a permettre ñu ne que centre bi en tout cas atteindre na ay objectif am donc ci wàllu performance équipement yi nga gis ne ñu def ko da fay lo ne lu ñu yàgg liggéey la avec le personnel. dama leen di gëna ñaax ñu gëna gor gorlu ñu gën a góorgóorlu parce que effort yi nga xam ne moom nañu def tey moo dem ba indi confiance bi nga xam ne tey Petrosen vis-à-vis du centre de santé donc nañu gën a góorgóorlu on est comprend on comprend que les défis sont énormes mais ñu bàyyi xel également que centre bi du centre bu bees centre dafay toll foo xamante ne dafay nécessité benn accompagnement accompagnement boo xamante ne régulièrement dafay laaj benn mise à niveau bu ñu mise à niveau di utiliser un matériel mu dem ba amortir mais si vous ba gis na que matériel bi amatul en tout cas njëriñ da ngay obligé changer ko donc je pense que ci phase boobu le centre bi mais vous avez déjà amélioration am et ce personnel jël nañ ci confiance donc nous, dañu bëgg en tout cas gën leen renouveler surtout ñun suñu disponibilité accompagner leen mais di leen wax ñu gën Nous góorgóorlu dañuy faral di journée de la femme journée de la femme mais en réalité journée Bobu dañ ko jagleel jigéen ñi nga xamné ne dañuy réclamer seeni droit té nak ku am droit am nga devoir et je pense que bo xolé par rapport à acte bi ñu def fay acte bo xamantane wax deug yalla mengona ak la nga xamné droit yo xamantane ñuy laaj la donc femme ci biir société mérite na plus d'attention plus de considération Mously Diakhaté deuxième adjointe au maire bu Anne député à l'Assemblée nationale donne na andi ay leeral ci troisième mandat bu président Macky bi commencé indi ay coow ci politique bi ak ci le président de la république maître Macky Sall à 2016 kenn imposé une ko Il a intégré cinq ans renouvelable une seule fois dans notre constitution Mon modèle d'initiative, initiative mandable à 5 ans parce que 7 ans lañ ko intégré ko constitution au Sénégal je pense que mon mi que ni 25 ans renouvelé une seule fois pour liggéeyal Je pense que ngëm mu sénégalais référendum feeg weddiwu ko du gëm ni moom gëmul woon lim bindoon parce que moo ko bindulu woon kon man nit ki damay wax ni li nga ma wax moom laay gëm ba keroog may gis bu ko dindi à plus forte raison ko nag li nga xam ne danga koo bindulu ba pare jox ko sénégalais yi nii leen wote leen ko ñu wote ko kon moom mi ko bindoon xam gëm naa ni gëm na ko ba mu koy bindulu gëm naa ne bi muy defi milliard pour ñu yóbbu ko référendum gëm noonu na ko alors que gisaguma man ma wara wax ni troisième mandat mom wax na ni dana ko def parce que wax ko doxewu ko kon li am solo tay moy Sénégal ci campagne bu xamante du dafa le président Macky Sall premier président bi nga xam mandat jeexal ba paré organiser ay élection que le meilleur gagne amna droit am candidat je pense que man fofu que fofu yeneen yooyu ñàkk fayda yi moom du ma ko nangu te xam naa ni moom nanguwu ko parce que moom ci boppam kenn forcé wu ko woon li nga xamante ni ñu ngi bindulu ni nañ def cinq ans renouvelable une seule fois ay garab yu ñu jëmbat fii ci Hann Montagne 5 ñoom waa fondation droit à la ville ci ndimbalu eaux et forêts ngir gën a yokk seen cadre de vie ginnaaw pavage projet de restructuration waaye bés yi ñu weesu benn vidéo bu doon circuler ci groupe whatsapp bi di wane garab yu ñu dagg mu nekk lu président conseil de quartier Hann Montagne 5 di naqarlu bu baax waaye lu ni mel balaa ñu koy def dañu waroon aviser askan wi ndax moom mii di président conseil de ci yëgu ci woon dara. garab bu ñu nekk de jëmbat ñu koy def suñu koñ suñu quartier nit waru ko dem parce que ñi effort bu ñuy def ba def ko fi ñun aussi effort boobu la ñu war am pour mu jëm ko au moins garab bi mën a jóg parce bu jógee. njëriñ ñëpp lay nekk donc boobu mooy benn et puis beneen bi mooy ma je crois que aussi tamit euh, booy jëmbat dara ma je crois que li gën a mooy sensibilisation bi dafa manqué parce que pourquoi dafa manqué man je crois que tey jii euh, quartier an Montagne Seck dafa am ay organisation yu fi nekk am na délégué de quartier am na président conseil de quartier am na ay association sportive am na ay association culturelle donc ñooñu tey jii bi ñu bay di ko jëmbat di def fi di implanter suñu suñu zone ñom mënon nañu ñu ñu ñu impliqué ñu ñun bu ma ñun conseil de quartier lay wax parce que tey buñ ci si impliqué woon dina permettre ñu mëna euh def ce qu'on appelle le suivi et puis deuxièmement mën nañ ko di arroser même mais pire ça mën nañ koy parrainer mën nañ koy parrainer par exemple kër gu nek bu ñu fa defee garab ñu parrainer garab bobu ak borom kër gi au moins kooku dina xam garabam bi moko mom comme ni mu war éduquer doom non la wara ki garab bi mais yoy amul il faut nit ñi am ben esprit de citoyenneté bo xamni même bu la boolewul dara sax bo gisee lu yax ci bi dëkk da nga si war opposé mais nak damay lancer appel aussi tamit moy ñi nga xam ñoo ko fi def bañ ko fi def dañu war associer wa quartier bi ni len ah ñi fi def ay garab kay len kat ngeen jappalé pour garab ñu bañ ko rey mais loolu amul si moo tax ngi demander ñoñu ñun nañu woo ñu toog ñu wax ñu associé ñu si li ñuy def boobaa ñun ñu mën jël ay disposition pour di ko def. Samba Dia nekk ingénieur fondation droit à la ville di leeral ne mbir mi waxtaan nañ ci ak askan wi ndax dem nañ sax ba di leen parrainer si garab yi. waaw loolu moom vraiment képp koo gis rek naqari naa la quoi parce que dañoo xëy benn suba rek vraiment doon def visite si chantier gis ni garab yu bari ñu koy damm di ko sànni te ku xam lu garab yi def ci environnement je que waroon nga ko mën a gën a toppatoo. Nous avons affaire boo xam vraiment naqari ñun ñun projet bi naqari na aussi les populations avant ñu jëmbat garab yi dans le cadre du projet dañoo prévoir euh, reboisement garab ak euh, daf ay banc public donc y avait une commission boo xam ni y avait les eaux et forêts y avait Il y avait l'entreprise ak le représentant des populations yi xam ni ñoo identifier endroit yi ñu war a def garab yi boo xoolee ci miir fi bind par exemple A mooy arbre bii c'est numéro 220 te yaakaar naa doo ñëw ci kër jàmbur di bind miiram te doo ko wax lan nga koy def donc bi ñuy ñëw di identifier point yi wax nañu borom kër gu ne ni la kat dañ fi def ay ay ay ay garab ci bunt kër yi bañ rafetlu ko am ñu ni sax ñu ni bëgguñu benn dañoo bëgg dafa leen ñaar wala dafa leen en dehors de ça a des travailleurs sociaux yoo xam ni équipe équipe sensibilisation bi lañ bokk ñoom en permanence ñi ngi ci projet bi di sensibiliser bi ñu demee aussi bay implanter garab yi ñëwaat nañ ci borom kër gu ne ni la kat garab gii ñu implanté sa buntu kër yow lañ ko paraneel maanaam yow lañ ko dénk yaay bàyyi garab gi yow lañ ko dénk pour nga koy toppatoo di ko sàmm donc avant pendant après yëpp daf nañ sensibilisation bi war pour que borom kër yi xam ne lii seen alal bopp ñoo ko moom quoi population bi aussi xam nañ ko parce que représentant population yi ñu àndoon ak ñoom aussi véhiculé nañ information boobu. waaw mesures yi duñ ciy jël lii bokk na ci aussi di leen remercier au passage li ngeen def nii ñëw gën a yokk sensibilisation parce que sensibilisation bi moom sensibilisation du doy. c'est permanent que c'est continue pour wan population la lii ñoom ñoo ko moom seen alal la ñoo ko war a veiller ñoo ko war a sàmm maintenant nag kuñ ci gis ngay def acte de vandalisme yooyu dañuy jaare yow ci yoon bu ñu waree dem ci yoon dem ak yow ci yoon parce que li alalu population bi la je pense que sax waxuma sax ñun mais bépp population boo xam ne acte citoyen rafetlu nga ko dëkk ci dëkk bi boo gisee kuy def loo xam noonu sax yow yaa war a njëkk a ñëw ni ko lii ngay def baaxul te ñooñ jàppaan ñoom mën nañ ko lijjën seen bopp am am door ko ñun ñuy ñëw dina yëpp ay ci yoon ak yooyu quoi. mu nekk ki nga xam ne daanaka moo fekkee mbir mi ni mu demee Leyti Ndiaye ci ay leeral. neexul parce que ñuy defar am ñuy yàq loolu amul kenn ku nga xam ne si ne neex na ko ci ñi nga xam si ne ñoo dëkk ci quartier en en montagne 5 lu nañ ko ba ci kanamu yàlla. aussi tamit lépp li nga xam ne si ne am na ci tamit liñ ci war a def def nañ ko su ma joxee tamit benn problème bi nga xam ne si ne ñëpp gis nañ ko mooy vidéo bi nga xam ne si ne moom la Ablaye Ndiaye dugal si si seen groupe bu Bédane bi mu indi coow lu metti pour man gis naa ne Ablaye Ndiaye da doon def li nga xam ne si ne moom mooy bëggoon a won population bi ne am na ñi nga xam ne si nit ñi dañuy liggéey mais ñoom loolu dañuy yàq te loolu moom lu ñaaw a ñaaw la parce que loolu rafetul te lépp lépp rafet euh, ñaalu nañ ko trop Ablaye Ndiaye ne peut-être bu muy def vidéo bi moo bu mu njëkk utiliser moo indi problème bi moom moo ne dafa ne xool leen waa montagne 5 c'est-à-dire am na ñi nga xam ne si ne nag déggee ko noonu dañ koo déggee ne moom dafa doon xas waa montagne 5 que wane ne waa montagne 5 ñoo damm garab yi ñoo ñoo ñoo ñoo def loolu bi loolu amee métti na waa montagne 5 mais man tamit li ma si war a def moom mooy bis bi affaire bi di am ab daayira la bi tas guddi gi bi ñuy ñibbi si biir daayira bi am na si xale bu si nekk si biir daayira bi xale bi moo doon damm garab yi bu muy damm garab yi am na sax moroomam mi nga xam ne si ci biir groupe bi mu àndaloon mu koy wax ne ko li ngay def baaxul moo tax ma taxaw xaar ma laajte leen ana seen jëwrin ñu ne ma seen jëwrin mi ngi nii di ñëw bi jëwrin bi ñëwee ma interpellé ko wax ko ne ko jëwrin mu ma ne ko sa daayira bii nii xale yi ñu ngi ñëw di damm garab te loolu dafa ñaaw dafa ñaaw moom mooy nit ki suñu defar da nga war a defar te man damaa yaakaar ne daayira yi bu fekkee dañ koo def dañu war a yar xale yi wala yedd xale yi wala orienté leen fi nga xam ne si ne dañuy nekk ay citoyens yu modem yu modèle man noonu laa jàppe ne daayira yi loolu moom mooy seen taxawaay bi ma ko waxee tamit moom wax na ni daal vraiment mi ngi koy jégalu mi ngi may jégalu mais loolu di dina ko wax ak waa daayira bi mercredi ñëw boobu mu war na am bi loolu amee ma ne ko tam loolu danga si war a taxaw bi loolu amee loolu la nag après juste ci la vidéo bi ñëw léegi nag mu indi problème ci diggante montagne cinq ak montagne 6 pour ñoom ñu yaakaar ne ab Ablaye Ndiaye dafay xas waa montagne après léegi nag loolu moo indi coow li ba waa montagne yi tamit daal di taxaw bugg a jàkkaarloo ak waa waa montagne 6 après man tamit ma def li ma war a def wax leen ne leen Ablaye Ndiaye intention am nekkul loolu mais intention moom mooy daf doon bugg a mais nag ni mu ko peut-être ni mu jaaralee information wala ni mu waxee moo indi jafe-jafe bi yàlla baax na. bi wa montagne di réunion wax ne dañuy def li man dem naa si réunion bi apaiser leen wax leen ne leen ablaye ndiay intention nekkul woon pour pour xas waa montagne wala wax waa montagne ay ay sauvage lañu wala nii mbir mi daal noonu la demee yàlla def na ci sutura ma waxtaan naag ñoom de déggal nañ ma di sant yàlla bu baax a baax ci biñ ma dégalee bi ñu bàyyee lépp euh, sedd ablaye ndiay tam def lu rafet daal di jéggaluwaat moom it beneen vidéo wax ne jégg mu ngi jéggalu waa montagne 5 waa montagne 5 yi tamit jéggal ko léegi nag ñu ngi def ay yeneen jéego yi nga xam ne si ne garab yi ñu yàqoon ñu jéem ko remplacer même si suñu ASC bi nga xam ne si ne fi bokk ñu ngi def loolu loolu tamit aussi lu lu ñu war a wax la lu ñu war a leeral la ginnaaw ba liggéeyu train express régional bi indilee ay jafe-jafe moom Mbaxane Sall di directeur école Aïssatou Marone te mu nekkoon foofu ci ginnaaw waay te ñu jële ko fa mom nak di joxoñ baramu tuuma ni di wa apex école bo xamné dañ ko impacté ci train express régional bi manam école la bu nekkoon ci ligne bi train bi sahar bi wara jaar et ñu yëkëti ko toj ko déplacer ko loolu la ñuy wax impacté donc euh, loolu moy sun situation aujourd'hui alors situation bobu nak jur ay jafé jafé yu mag euh ci école bi euh parce que xam nga yu mel noonu bu amé ñuy déplacer école alors euh, dafa am ay charte ay points yoo xam ne dañ ko war respecter maanaam war nañu fay école bi perte de revenu war nañ la tabaxalaat école comme niñ ko waxee woon war nañ la accompagner mais loolu yëpp amu ci loi bi dafa une indemnisation juste et préalable indemnisation bi justul parce que biñ ñuy indemniser alors dañu ne woon dañuy jël chiffre d'affaires école bi nous multiplier par 6 pour faire une perte de revenus. Alors, je me présente l'école, je fais mon dossier financier, nous évaluons l'école à 10 millions par mois. Wa apik si né 10 millions par mois man lolu yanoul mana né dañu def audit mané wa def len audit def len audit comme loi prévoit. prévoir nako def len audit batay nanguna biñu audit alors nous, évaluons l'école à 4 millions par mois. Oui, si nous avons calculé les pertes de revenus, au lieu de 4 millions multipliés par 6, c'est 24 millions, plus il y a une indemnisation, de déplacement pour les sociétés formelles, 1 million 500, et une indemnisation de loyer, madame, nous avons fait loyer, nous multiplions par 6, nous avons fait bénéfice, multiplié par 6 fuñu ñu joté 30 millions ci sen calcul ñom donte sax nanguwu ñu guñu won ñom ñu proposé ñu 8 millions 500. ah bañu xamé né li et eh, ab càcc lal li lor moko li lal li bëgg yaq moko lal li bëgg jël xaaliss askan wi def ko ci sen poste moko lal ah man nopi melni ni ku ànd ca pour am ay preuves li may wax ni préfecture bu Dakar lañ ko signé